koo jëloon Sénégal nga di ko psychanalyser mhm. muy état gouvernance bi muy situation politique bi muy les postures de l'opposition le postures du pouvoir euh, lan mooy doon sa sentence euh, bu doon diagnostic dañ naan état très grave plus grave qu'à la veille des élections de 2098 ah oui 99. ah oui c' était complètement xam nga c' est très intéressant li parce que xam nga lu tax par exemple on a eu beaucoup de tensions en 99 la société civile a joué un rôle fondamental d' de d' intermédiation diggante Abdou Diouf ak Ablaye Wade xaw ma ndax fàttaliku ngeen ko. Ablaye Wade à l'époque dafa doon carte yooyu ñu génnoon. les cartes de du ci dem élection abadan tension bi dëgër na trop trop. ba jëm ne élection du fi am te booba Ablaye am na dooleel lool ñun ñu jóg ñu jóg ne dañu dañu dañu def intermédiation li tax mu différent trop ak l'époque dañu dem seeti Abdou Diouf mu ne ñu y a pas de problème ñu ñu dem seeti Abdou Diouf Abdou Diouf nañu moi je suis je pas Abdou Diouf sax commencé wu ñu Abdou Diouf dama xëy ñun ñu décidé ko y man y avait le forum civil Alioune Tine Rado Mazid Ndiaye ñoo daje ne il faut qu'on fasse quelque chose ñu ne ma ñu d'accord ñu ne mandaté ma ne ma waxal ak général la Cissé ma au général Lamine Cissé ne ko on veut vous voir très disponible mu ne ma venez ñu ñëw ne ko est-ce qu'on peut on veut faire quelque chose on veut on veut dans la situation actuelle est-ce que vous êtes d'accord sur le principe mu ne laissez-moi un instant ne woo président Abdou Diouf Abdou juuf ne ko amul problème ñu ne ko léegi on va vous proposer une démarche mu ne d'accord léegi dem leen seeti euh, opposition ñu dem seeti opposition boobu ñoom ñu ngi dajee siège u ànd jëf si wetu lycée Kennedy ñu fekk ab fa Ablaye Bathily dans euh, dans ko euh, Savané ñëw posé leen problème bi d'ailleurs je me rappelle sax à l'époque kenn si ñoom du ma tudd turam ay les sociétés civiles ma arrêté ko ne ko vous arrêtez vous n'avez pas de juge est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse l'intermédiation ou pas finalement ñoom daal ci di calmer le jeu ñoom la ne ko ok je je je signale c'est juste pour vous montrer la différence de situation on avait des leaders politiques qui ay adversaires la ñu mais ils avaient un gros leadership ils, ils, ils étaient conscients de leurs responsabilités et des enjeux et des enjeux et, et étaient capables de pouvoir se parler aujourd'hui on a une situation qui est très compliquée c'est-à-dire dañu dépasser affaire adversité politique. on est dans la haine. loolu laa doon bëgg wax c'est-à-dire que bañante moo dugg am na benn nation ma ko doon wax moo tax may wax suñu mbokk sénégalais bu ñu benn politicien yóbbu ñuy bañante suñu biir ñun Sénégal. mais le mal est profond c'est déjà. mais non non non c'est pas c'est fait am na lu bari lu ci am waaye nag nañ ci yeewoo nañ ci yeewu politiciens yi. géttan nañ ñu gis nga dama doon avant muy ñëw dama doon xool parce que c'est très important élection yi la passé présidentielle on a eu quatre millions cent vingt huit mille votants sur million sept millions élection législative trois millions deux cent soixante dix neuf mille votants sur dix sept millions c'est-à-dire vingt pour cent ñoo voté te ñi si ñi wéer ñu voté ñëpp bokkuñu ci parti politique peut-être ñi bokk ci parti politique Sénégal matuñu 10 pour sa ba pare ñoom seen adversité bëgg a tas réew mi loolu loolu moo jaaduwul Sénégalais dañu war a yeewu ñiy def politique dàq ñu jàng nit ñi ëpp ñu leen valeur indi lu ñu réew mi parce que loolu foog ñu wax ko li ñeneen ñi indiwul sénégalais yi créer richesse c'est-à-dire xëy jël sa investissement sa alal sa xaalis dugal ko pour réew mi dem kanam nga jël ay risques ñoom dañu xëy jël rajo yi di wax fii ku nekk def def seen politique mais wu ñu richesse donc seen adversité warul dem ba réew mi sénégalais yi di bañante benn sénégalais yi léegi homme politique dañ leen di tiital parce que dañ naan bu homme politique dañ naan manifestation dëkk bi ñi raar kenn liggéeyul man xam naa man man kii laa euh, entre yow da nga yor entreprise man dama yor entreprise. profession libérale da am na ay jours yoo xam ne da nga naan sa personne toog leen seen kër. bu weer dee da nga leen war a fay. loolu nag la Sénégalais yi war a am fulla ak fayda bañ ko nangu parce que bés boo toog liggéeyoo ko ñu ne tey dafa am manifestation ñëpp ragal tëju seen kër activité politique warul loo xam ne dafay tiital Sénégalais yi bu duñu mën a génn seen kër. loolu loolu sénégal yi ñoo war a yeewu bañ ko nangu parce que solution bi moo tax gis nga solution bi dañ defee ne bu adversaire politique yi toogee rek rek ñu ne nañ def dialogue euh, euh, Macky ak Ousmane Sonko nañ toog dialogue loolu mais c'est une petite chose ñoom ñoom représent 20 pour cent sénégal yi sax représenté. parce que on oublie on oublie li ñu jot a yàq tas nañ këru diine yi tas nañ sax le secteur de la presse jaxase nañ ñu. Euh, déstructurer nañ le tissu sociale et familiale réeral nañu jeunesse bi et indi nañ fi ay valeur ay ay ay anti valeur yu bon a bon dama dégg suma keroog suma suma doom naan dafa xam famille yoo xam ne ñaari frère dootuñu tuddante mais loolu ya musiba la Sénégalais yi nañu yeew nañu yeew te jàppane ne politique lu mu munti wax intérim la jiital na ko wanaat intérim la jiital te nag gënuñu sénégalais yi waruñu nangu ñoom ñiy xëy di sonn di liggéey di fay impôt di créer richesse di employer ay nit ñooñu waruñu nangu ñàkk fayda ba ambition parce que problème bi tamit ñaari mbir la ambition ak ego ambition nag ambition sax normale la maintenant sain c'est-à-dire warul malsain warul warul doon ambition bu boo xam ne da nga naan lu mu nu ma si mën a jotee rek baax na ambition dafa am lu ko féete kaw amul ambition homme politique ci réew mi boo xam ne moo féete kaw intérêt Sénégal Sénégal moo war a féete kaw te ku gëm loolu muy dëgg ci yow am na loo xam ne waroo ko def boo naree ñàkk sax waroo ko def waaye ne man li ma bëgg foog mu am su ma ko amul dëkk bi day tas loolu kenn mënu musu ko dégg ba pare ñaari côté yëpp ngay dégg ñàkk teggin ak wax ay saaga yu bon ci réew mi kenn musul gis loolu kenn musul gis loolu wax yu ñaaw yu bon bu gën a bon sa boroom dégg nañ ko fi pouvoir commence naan dañ leen di rey sànni leen si géej jën jëndi lekk leen ñee ne leen dinañ leen génn ci réew mi wax yu xale sawarul dégg mais man je peux pas comprendre man mënuma gëm nit boo ne dafa am leadership ne dafa bëgg a jiite réew mi wane laata nga jot ko yenn jikko yi muy pouvoir ak opposition. après ñu lay woteel. loolu nag loolu nag responsabilité sénégalais yi la waxuma sax woteel leen man responsabilité sénégalais yi man li ma si jaaxal mooy ñu dem ba di bañante seen biir di gaañante seen biir ndax ay ambition wu ay homme politique ñoom sénégalais yi dañu am fulla jiital Sénégal parce que tamit dafa am benn mbir. ku fi xëccoo réew wala bëgg conserver réew teg ko ci fitna ak violence di nga sonn bés boo ko jotee. doo ko jëriñoo. doo ko jëriñoo parce que ni ni nga ni nga ni nga ni nga defee violence ba jot si wala ni nga defee violence ba conserver ko boo toogee ñële xam ne comme loolu tamit méthode la ñu utiliser les mêmes méthodes pour jëlaat pouvoir loolu la ñu gis si réew yu bari te tamit nañ seet histoire bu ñu seetee histoire. histoire politique gën a marquante ci combat politique mooy les grands leaders politiques yi am xam dañu prôné non violence maanaam bañ bañ dugg ci fitna Nelson Mandela teg nañ ko lu nekk li ñu teg Nelson Mandela amul homme politique buñ ko teg ci Afrique teg dañ ko kose pratiquement ñaar fukki at Martin Luther King musul woote violence Mahatma Gandhi mosuñu woote ñu la histoire retenir ñi woote violence ba dem pouvoir yëpp fàttali leen kon sénégalais yi nañu xam ne Sénégal dafa ñu fete kaw lu ñu def tey rek ñu sóor suba te li fi xewoon ci début juin bi yëngal na réew bi xaw ko nërmeel conséquences yu garaaw la am parce que tamit dafa am aspect yoo xam ne duñ ko ci génn yu am solo yaa ngi wax tout à l'heure sur le plan international sur le plan économique man damay liggéey si si si comme avocat d'affaires si ay dossier wu financement de projet. le le secteur des investissements. investissement Sénégal yi dañu war a xam amul réew bu soxlawul investissement ku la fi wax nañu dàq tel réew wala teew réew bu buggul buggul buggul buggul buggul réew bi parce que c'est amul réew bu soxlawul investissement États-Unis Chine dañu xëccoo pour am ay investisseurs parce que investisseur mooy indi alalam. di créer richesse création richesse boobu mooy indi liggéey sa nag fu mu am jàmmalay dem